bon il faut tamit ñu mhm. sinon ça va être beaucoup de répétition. Mhm. Mhm. Euh, on risque d'avoir une première semaine de campagne très monotone. tout à fait. Ah, campagne il faut être dans le staff d'un candidat pour xam ni rien ne bouge xam nga xam les gens se retiennent. pourquoi. bon les gens se retiennent mooy. parce que li dal. Mm-hmm. dal ma dal keneen. Mm-hmm. xam nga tey tey. à une semaine de la campagne. man perso je ne sais pas sur quel pied danser. waaye dama ne nit ñi dafay dafa waroon di jax jaxi. Mm-hmm. personne n'a fait aucune commande. Ken demul def plan de communication. Dorom bénéfice. Ken demul wax ak média yi. doorom benn affiche yi c'est parce que xamul la service commercial yëngu wuñu dara tu te dis si je donne de l'avance tu ma joxee suma xaalis avance. Mhm. pour son, pour lui, pour t-shirt D'avoir un t-shirt et que ñu avons un li de dégg yëpp. ak liy xew yëpp. Mhm. te ñun les gens Ils ont une justice mais ils n'ont plus. confiance en cette justice. gars yi une nañu yeewu mhm. xam nga logiquement amul ben par aucune alchimie cette élection là. ne peut être mais buñ la avez nous PDS commission d'enquête parlementaire. contre deux juges constitutionnels contre deux juges. APR Benno on va l'appuyer. on va suivre pour jox leen 5 De notre notre a démocratie. vous mais tu es dans quel monde. Mm-hmm. Le monde où nga nekk reporter élection dépensé woon nga xaalis dépensé énergie parce que xam nga campagne da ngay wàññi candidat da ngay wàññi da ngay ne xaaral ma dem Kédougou pendant la pré campagne c'est vrai que duñ ma médiatiser mais damay wàññi foofu maanaam damay def ay quelques villages mmh. loolu la ñenn yi def instant yi Khalifa Sall loolu lay def Mm-hmm. il est dans le Podor il est à ah, Dagana il était à waaw waaw yoo xam ne woy sori mm-hmm. ba nga xam ne doo fa mun jaar ci pré campagne bi nga fay wàññi mm-hmm. mais ñaata ci candidat yi ñoo nekk sur le terrain am na ñoo xam ne ils sont dans le doute gisuñu leen sax waaw te ñenn ñi bu ñu wàccee lañ may may ñu leen lu ñu xalaatee dem élection tey média yu bëri amaguñu plan da ngay woote qu'est-ce que vous prévoyez gars yi ne la est-ce que élection dina am. Hmm. donc donc donc fu mu nekk nii. on n'est pas dans le li hmm. une campagne électorale de programme mënuñu ko am parce que les gens ne sont pas assez préparés li ñu bëggoon am si combat li ñu bëggoon am si mobilisation. Hmm. tey élection bu amee day dina bett jëpp. parce que en fait personne n'est prêt parce que tamit. gis nga même convoquer une réunion ici ça coûte cher tu convoques tes délégués régionaux mais da nga leen di jox paas da nga leen di loger hmm. rien que pour faire mais lu la leerul ni élection yi dina am xoolal tey jii y a plusieurs camps ñoo ne ñun de li ñuy dépense yëpp ñoom Boun Abdallah Dionne nee nañ ku leen dàqal élection bi ñu këddanteeg yow. Hmm. ndax liñ ci def ci parce que ils sont convaincus de leur victoire. Hmm. Déthié Fall nee na pare naa. Mamadou Lamine Diallo Serigne Mboup. askan wi Anta Babacar mhm. Rose Wardini waaw léegi ñooñu nga xam ni challenge la woon pour bokk. Mhm. léegi bokk nañ ñu bëgg dem léegi à la l'assaut des population pour au moins même bu ñu gañewul ñu natt seen bopp. Mhm. jël rendez-vous avec. l'histoire avec le futur. les législatives waaw mais nga yow yeewu suba teel naan ko tey élection dina am suba élection du am. même moi je je suis pas convaincu que l'élection day am yow mi eu la. Mhm. la nga parce que nous avons logique politique. Mhm. kenn ko à une semaine. mais nga on est au Sénégal au Sénégal fille Guinée du tout ce qui est norme dans un pays est anormalité ici. fille, fille, fille, fille, fille, fille, fille, fille, comme le pays des paradoxes. Mhm.

pour gagner le palais c'est un problème. ah non non pour gagner le palais bi y activité problème hmm, pourquoi. les derniers 1980 euh, non 2000 euh, Abdou hmm. en termes d'activité. Hmm. les quelques mois avant la présidentielle dem leen nag surtout nag ngeen xool Senghor bi nga xamee ni fuite nañu xam nga affaire dafa njëkk am fuite. Hmm. que ni il va lâcher le pouvoir dem leen ngeen xool c'est-à-dire tu es dans ton palais tu réfléchis ci kii mais xool leen aujourd'hui l'activité l'intense activité depuis plus de trois mois de Macky Sall Macky Sall foo ko woo mu ñëw mais pour quelqu'un qui doit partir du def loolu hmm. même gis nga tey jii même inauguration BRT bi ah bu doon kuy dem du moo koy def. Amadou Ba day gisuñu ko Amadou Ba moo koy def wala mu jël Amadou Ba ñoom ñaan ñu ne mooy il lance Amadou Ba à Ziguinchor sànni ko à des milliers de kilomètres ñëw jël buzz bi. Hmm. parewul pour dem. <laughs> te Amadou Ba c'est hmm. il a déjà été investi waaye investiture boobu bu tëbee élection bu tëbee mooy investiture bi tëb na. mu ñàkk chance. non dama ne. Hmm. parce

mu mu marche arrière ci ak ni ko nit ñi gëmee woon. Hmm. nga xamante mom sa parole n'a évolué d'un iota da koo bind. le 3 juillet mu respectons ko té pourtant tendance yim avec ko ci wax mu dàq la ba lépp nuru ko moi man je le prends comme un athlète du voltige tu peux savoir qu'il va faire un saut mais c'est le nombre de roulades nga dul maîtriser. Hmm. attention. mais attends attention loolu rapport de force la de. mën nuru nurul de. non non mais mais. na ku nekk joxe dernier moom ñu laal jotaay bi non ñàkk troisième mandat bi. na ku joxe dernier mom ñu laal jotaay bi li ken mënu kaa nga ñàkk troisième mandat bi mm. ça va porte ça va être un débat bo xam dina fi ñëw dina ñewat mm. mais man dama gëm ni rapport de force la. mais d'accord dama gëm ni. donc donc c' gatsa gatsa. donc c' est pas le plus faible li nga ñii ñëpp tey donc il est pas le plus faible. Non. Attention. C'est un rapport de force dont il n'est pas le plus faible. Non, non, dans ce rapport de force-là, xanaa li andi jam ci mi nga dem jeli Ousmane Sonko mu fanaan ben fan. ci prison bi. Mhm. parce que Macky Sall mo renoncé à un troisième mandat. Et on na dit ko wax mhm. c'est-à-dire les sénégalais tamit lu ñu bëgg bëgg Ousmane Sonko Sénégal leen gënal Ousmane Sonko. Mhm. et puis il fallait pas tomber dans le piège xam nga attendez Dès le si kii bi le complot là je le dis je le réitère le complot là a existé parce que tant que les luñ ko l'attentat de Yarah. Hum. mais il faut faire très attention à ça lan lañ def Ousmane Sonko dissoudre le pasteur deux jours après il y a eu l'attentat de Yarah. Hum. man encore et je le réitère parce que amoon je pose des questions je pose des points d'interrogation sans réponse Yo, soo demee ba mun def attentat da ngay viser ton ennemi Boy viser ennemi da ngay fekk kaaru police bu taxaw nga sànni cocktail monotone. au moins nga satisfaction mais prendre des civils dans aucun pays du monde des experts en terrorisme si nous avons fait enquête mais le mobile quel est le mobile que les gens peuvent avoir à entrer dans un bus où il y a des citoyens bon mettre sax militants ou sympathisants dans leen on a dit on a arrêté des gens depuis longtemps mhm. où sont-ils qu'est-ce qu'ils ont dit qu'est-ce qu'ils ont qui est leur commanditaire mhm. Bataille xam nga dama japp ni les gens voulaient créer un chaos tel que bu ñu jàppee Ousmane Sonko da ki nu mu tudd tas Pastef dëkk bi tak ñu dem ñu bañ dem élection parce que nga problème bi fu mu nekk nii mooy lan et ça c'est c'est la réflexion très approfondie de de de de de de Macky mom bu demee élection ñu gañe ko bu ànd candidat ñu gañe ko donc li ñu wara def moy créer ay artifice yoo xam ni dinañ mun yóbbu affaire bi deux ans loolu lañ lay wax seen salon yi nañ puusaat ah, deux ans rek ñoom jàmm nañ nañ askan wi pare nañ ñëpp pare nañu nañu def élection yi nag jàmb na ñooy ndax fi mu ne stress bi la nit ñi àttanatul pression bi métti na nag vraiment ñoo leen ko ñaan report moom ñu ngi koy agité de plus en plus ku nekk ngi naan ci loxo Karim Wade la nar a jaare yàlla bu mu jaare ci loxoom ndax euh, commission d'enquête parlementaire bi yoon ak ko may mu jël donte nag euh, tamit juge yi est-ce qu'ils vont se laisser faire est en tout cas la suite moom euh, na ñu dimbali rek euh, bu mu fi indi dara loo xam ne dina indi jiixi jaaxal ci réew mi toll nañu foo xam ne mënatuñu dellu ginnaaw. Mhm. toll nañ foo xam ne mënatuñu dellu ginnaaw ngalla na élection yi am ci jàmm ak salaam ki war a jël réew mi jël ko ñeneen ñi nag xool ci tamit ku ci nekk dellu ca la nga nekkoon rek Sénégal jëm kanam du lii la